s'il ne met pas koy wax sa waay loolu leen teg xam non l'opposition bokkut ak Benno de ah peut-être non c'est que moi ce de candidats yoo xam ne ay leçons yu bees daal man damaa sonn ci jàng man damaa jàng xam nañ dafa seet dañu sàngu may nelawuñu stratégie yi ngeen teg yooyu lañu ñu teg tey jii ñii génn ñëpp muy siis ñii génn ñëpp tey bu deuxième tour amoon ñoom ñoom ils rallier ci ci ci ci ci opposition bi yéen tamit seen i candidats yooyu gëm naa ne 90 pour cent yi boo leen génnee deux ils rallier. waaw léegi loolu moom la moo tax ma ne ko nag stratégie ngeen defal. waaw waaw léegi c'est pas la c'est pas la. pourquoi léegi yéen boole leen li ngeen def ñi di ko def nangu leen rek.